aleykum leen ci xibaar yi ginna ci fës accident bi amoon niki démb foofe ca Louga ba tey ñu ngi koy waxtaanee njabooti kenn ki ci ñàkk bakkanam te ñu rëpp tey ci suba fi ci Gueule Tapée euh, di joxar yi baaraamu tuuma nguur gi ne moom la waaye nag bañ demee Louga moom askan wi daal jàpp ne ba bis bi tàmbalee daw ba ni muy këppoo nañu xool responsabilité ku ci ne lan nga ci am ci wàllu woowee waaye tam ñu des foofe ca Louga ànd ak directeur régional bu santé ca Louga nag ngir mu wax ñu euh, taxawaay bi ñeel paj mi waaye tamit social ba di prise en charge médicale ak sociale dañoo dem seeti conseil constitutionnel ngir ñu daal di neenal projet loi buy euh, saytu lii di charte réew waaye tamit ñu daal di modifier wala soppi code procédure pénale ñaar fukki député ak ñett yu opposition ñoom ñoo amal ni nu mel njëgu courant fi ci Sénégal Senelec nag mu ngay xool gën a saytu nees mën na def daal ba gën ko ñoŋal ba ku ci na gis ci boppam wuuteeg nam fa amee tey jile dina ko ay leexali ci biir xibaar yi ki jiite euh, Senelec di société nationale électricité fii ci euh, Sénégal ci biir xibaar dañ ci ànd ak yéen. coup d'état euh, ba am foofe ca Niger président Macky Sall di ko naqarlu euh, foofe nag ca Niger état majoru armée dem na fekk ñi amal boobule coup d'état ji militaire yi ñaar pat xibaar yi gis-gis dinañ ci ànd ak yéen tey ci waxtaan jëmale ci stratégie nationale wala plan bi ñu nas ngir xeex lépp lu jëm ci mbëkk mi di immigration irrégulière war ci ànd ak nag kii di Moustapha Ka di expert ci wàllu comité interministériel buy xeex ni nu mel waaye tamit bind na ab téere ngir daal xool yan yoon euh, la ñu war jaar ngir jëlee ko fi. ba tey ci waxtaan wi ba dara Ndiaye di président ONG JADEM waaye tamit di yëngu ci wàll woowee mbokku jaa ngeen jëf lii moo gën a fa ci xibaar incha allah Assane Diouf ci technique bi Yacine Pouy ci digital bi asalaamaaleykum. Seydou Nourou dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM dañu ñëwaat waxaat ci accident bu métti bi amul niki démb ba ñaar fukki bakkan ak ñeent rocci. directeur régional bu santé euh, ca Louga di ñu waxaan yëfi nam fa tëddee Cheikh Sadibou Senghor ci téléphone beeg Awa Mbaye ci koor yi ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak ñeent yëpp ku ci nekk identifié nañ leen xam nañu ñan lañu dañu amoon nag ay koor yi nga xam ne ay néew yi nga xam ne yóbbuwoon nañ leen ci mosquée yi parce que morgue bi nekk hôpital mënul woon jël ñëpp euh, seeni mbokk yi ñëw nañu ba jël nañ ci le maximum donc beneen bi mooy maladie ñi nga xam ne jotoon nañu am ay gaañu gaañu démb donc dañoo nemmeeku ne que ni malade yépp ci suba si ba 10 heures ci suba si euh, amul kenn ku ci am problème donc amuñu beneen décès ci diggante bi amuñu keneen ku ci ñàkk bakkanam te boo xoolee euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon hôpital Saint-Louis fukk ak benn ñu yóbboon démb ma ñaar dong ñoo fa des donc ñi si des ñëpp indiwaat nañ leen parce que dañ leen fa yóbboon juste pour ñu def scanner pour mën a dellu si waat ñu mën leen jël en charge correctement et même bon xoolee fii ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye euh, ñeent ñoo nekkoon démb chirurgie pour opération ñaar ñi génn nañu donc ñaar dong ñoo fa des te ñoon ñëpp pratiquement yàlla def na kenn amu ci benn problème stable nañu Sidi Dramé bokuna ci ñi ñak seeni bakan ci bile l'accident bu métti bu am ci yoonu Ngën sar ci Louga mom nak ouvrier la won jóge won Fouta dafa démon fofu ngir ap liggéey Euh, Sidi nag euh, amoon na soxna am tamit ay bant amoon na lu mu néew néew ñeent fukki at njabootam nag di joxari baaramu tuuma nguur gi euh, moom nag ñu gis ne wala ñu jàpp ne borom kër la woon boo xam ne ku baax la woonam diine leexal yi ak kuma sànjan fay. metti nañ ba kenn wax. ci buntu kër gi nekk ci gël tàppe ca basang li kili ñàkk borom këram toog téye kurus kanam gi di wane naqar muuru wàcc bopp bi jege ñaale yeeg dëkkandoo yi ñëw toog ci wet ga ngir bokk ak njaboot gi naqar gi ñuy dund Ndey Jaw moom moo jur Sidi mi faatu ci digg dooleem plombier la woon bàyyib soxna ak juróomi bant waajuram joojee di ñu nettali naka la njaboot gi yégee ne seen doom googulee génn na àddina ceeb accident damay dem su ma demee du ma fa yàgg damay duggee tuuti tax fi tam xarit see bési di mardi ma laaj jabaram ndox dégg nga ko mu ne ma déedéet ma ne ko xaaral di koy woo ne ko Sidi foo toll mu ne maa ngi toll du saa toll ma ne ko yéen naa jënga de mu bi oto bi bis bi dafa paan caaroy après pour lañu fanaan metti na muy doom ju baax ku am yar ku am teggin ku am sutura ku bëgg ndey ñoom duñuy wax yaay ndey rek la ñuy wax kaay ma ne ko maa ngi ñëw la xew ne fekk dafa romb jabar si waaye ñu ne ko kaay ma ñu gis jabar ji ma ne lan la si dafa dee yow ku la ko wax

rongoñ ci dënn bi mu jafe woon ñu wax loo ko. sant yàlla rek sant yàlla rek di ko ñaanal rek yal ko yàlla xare àjjana. mu gis ne lu jiig njaag nguurub Sénégal la ndax li ko wax ngir ñi ci tali bi di dawal yoon ak heure la defut. nombre de place am lay wàcc fii ak carte grise am et tout. arrivé à Dakar ñu daaj ay chaise def ay surnom nañu romb ay policiers ay gendarmes ni ñuy wax ndogalu yàlla la mais trop c'est trop il faut qu'ils prennent leur responsabilité ko jébbal accident boobee am ci yoonu Louga di fësal ñaar fukk ak ñeent bakkan yu xot bilan bu mujj bi joxe ñaar fukk ak ñeent bakkan yu xot ak yi ñi amee ay gaañu gaañu. njabooti juróom fukk ak ñaar Kumba Sagnane Faye njabooti ñi ñàkk seeni e, bakkan wala sax ña nga xam dañu daal di. amay gaañu gaañu yu metti e, ñoom ña ci yenn bërëb yi e, ca l'hôpital seen njaboot tamit ñu nga def lu ne ngir daal na gunge waaye nag gis nañ ne prise en charge bi naam sax mu ngay am ni mu war a amee waaye lu ci ëpp daal seen njaboot duñ nekk seen wet reportage ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye Nafissatou Ndiaye. Abdoulaye Amidou Ba. waaye si jóge ba diwaanu Kaolack ñëw fii ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ngir jël si néewu doomam bi amoon ñaar fukki at ak ñett te faatu ci accident bu métti bi fi amoon démb moom nag ñu gis ko kanam gaa ngi lewat lool. accident bi métti na trop. waaw parce que lu toll ni sa doom mu faatu ci accident métti na trop. mais nag ñu ngi sant yàlla te xam na ne yàlla moom mooy dogal waaw li yàlla def nag moom mooy liggéey waaw naa koy sant yàlla bu baax a baax amoon na ñaar fukki at ak ñett Aminata Seck moom fii ci diwaanu Louga a dëkk dafa ñëwoon ci l'hôpital bi ngir taxawu benn njëkkeem ñu ngi xamal ni prise en charge bi jaar na yoon. ñu ngi leen di toppatoo kay bu baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. Idi Mbaye jóge ba dakaar doomam ci ñu amoon gaañu gaañu la bokkoon mu ngi ñuy xamal sax ne jamono ji am na ab tan. alhamdulilah bon am ñi nga xam ne gaañ nañu boo taneen alhamdulilah tan macha allah. parce que moom bàyyi nañ ko tey sax bàyyi nañ ko am ñi nga xam nag même tey tey am ñi nga xam dañ leen di bàyyi tey fii ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga personnel médical bi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir taxawu ñi nga xam ni ñoo amoon ay gaañu-gaañu ci accident bi fi amoon ni ki àllarba gi ñu weesu Nafisatu Ndiaye Louga rajo Futurs fi Nafisatu Ndiaye foofee ca Louga juróom-ñaari simili moo tegu ci benn waxtu ci rajo bi ngeen tàmm RFM rajo askan wi. Seydou Nourou Ba. Assane Biram Diouf ak Yacine P ci machine beeg digital bi cérémonie la woon tey ci suba ngi ñu dal di euh, dëggal wala ñu valider ab stratégie nationale di nas euh, plan bi nga xam ne moo fi jëlee. Euh, ñiy faral ji jaare ci géej gi ngir wutale si biti réew ba ñàkk seen i bakkan di immigration irrégulière bu ñu sukkandikoo ci premier ministre nag stratégie boobee ci juróomi ponkul daldi di tabaxu bokk na ci nag daal fexe ba surveiller lépp lu jëm ci euh, waxi Sénégal bokk na ci waaye tamit euh, nguur gi di leeral ne daal xam nañ ne bu baax a baax lu xew te def lu ne ba daal di aar euh, seeni ndaw Antoine Félix Diome nag ak juróomi yeneen ci ay ministre nag ñoom ñoo ñëwoon fekkee cérémonie boobee ñu ubbi ko premier ministre nag Amadou Ba moom moo amal discours ngir jeexal jeexal waxtaan yi Antoine Diome ak Salimata xamal ñi bëgg a tukki yoon yi ñu war a jaar xamal leen tamit ni liñ leen di gëmloo ni moo am ca fa ñu jëm dëppoowul ak li nekk dëgg-dëgg xamal leen ni bu dee da nga bëgg a tukki yaa xam kooma la tax a jóg yaa xam leneen a la tax a jóg ndax danga nga aadawoo tukki wala da nga bëgg a fekki ku la jegeñ dafa am yoon yoo war a jaar ngir mën a dem bu fekkente ni yoon yooyu sottiwul mën nañ la xelal mën nañ ànd ak yow gunge la parce que ki bëgg dem fekk koom taxu koo jóg kooku moo gën a naqaree téye sax ki bëgg dem fekk koom moo ko tax a jóg ndax kooku bu amee koom day toog waaye gis nañ ñoo xamante ni koom taxu leen dem mooy li ministre en charge des sénégalais de l'extérieur doon wax léegi parce que bu dee da nga am métier ngay liggéey yàlla di la dimbale ngay suturloo loolu bu dee da nga bëgg a dem xañ na leneen moo tax kooku dañ koy xelal pour jéem ko jaarale ci yoon woo xamante ni dina mën a dem ak dikk te du ci am loraange donc partie information sensibilisation ak communication dafay bokk ci poñu prévention boobu taxawu nag tamit ñiy tukki muy protection da ciy bokk ñetteel bi gestion des frontières tamit daf siy bokk fexe ba ku bëgg a dem ci anam boo xamante ni mën na la indi loraange état fexe ba loolu bañ a am ñeenteel bi mooy ñi nga xamante ni demoon nañu war a dikkaat bu ñu ñëwee ñu gunge leen ànd ak ñoom ci fànn bu mu munti doon moo xam fànnu koom la wala fànnu xelal wala fànnu ànd ak ñoom bu dee du koom moo tax wan leen ci yoon yoon lañuy jaar jaar juróomeelu poñ bi mooy xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi leen di jéem a exploité ñiy jël seen xaalis di leen gëmloo ak di leen gisloo loo xamante ni ay naxe la ministre bu ñu dénk nag doomu sénégalais ca biti réew ne nag euh, bëri na ñi nga xam ne nag euh, dañoo tukki amuñu benn jafe-jafe ci wàllu koom-koom euh, ba mu jógee dax la yàggul dara bu fa ca Maroc wala jege loolu Espagne jot fa nag gis doomu sénégalais ya fa ne nag am seen diplôme waaye tamit ñu ngay liggéey Annette Seck Ndiaye nag ne bii les plan bu ñu doon waxtaanee léegi léegi bu amee Sénégal dina gën a wàññi bu baax a baax ñi faral di mbëkk yi Aline Seck yi ak Salima Taw li ma gën a bett mooy ba ma waxtaanee ak ñoom ci seen centre la ma jot a jàng mooy la ma yaakaaroon ne fu ñu toll rek ñi nga xam ne ñu ngi xalaat di dem mooy ñi nga xam ne amatuñu benn yaakaar wala niñ koy waxee fii gis naa ne discours boobu du du discours bi nga xam ne moom la ñu war a déglu bu baax dañu war a càmbar yëf parce que ba ma waxtaaneek ak nit ñi gis naa ne xale yu bare yu ci nekk ñu ngi am activité fii ci seen ay localité ci région ñu ngi liggéey ñii ay menuisier lañu ñii ay tailleur lañu am ay atelier yoo xam ñu ngi liggéeyloo sax ay nit ko sax ñu fa ñi leen jot dem aspect sociologique bu am importance maanaam nga doon di dem di un moyen d'ascension

yokk koom-koomam yokk jumtukaayam kooku mën a dem dans des voies légales sûres et ordonnées te ñu jàppale ko ci. ak RFM kumpa jeex na. ñu àddu ci politique député yu opposition nag jot nañu déposé ab recours ca conseil constitutionnel ngi ñu daal di neenal wala supprimer.

Euh, voté nañ ko te gis nañ ni am na ay dispositions yoo xam ne àndul ak euh, charte ndayu réew mi dañ ko war a yóbbu conseil constitutionnel pour conseil constitutionnel saytuwaat ko xool lan la si mën a jubanti lan la si gën a mën a njongal pour que loi yooyu nag euh, parce que loi yi ñoo ngi koy voté si turu askan wi donc warul am ay loo xam ne daal du leer wala loo xam ne daal àndul ak lu ne si charte ndayu réew mi te gis nañ ci loi yooyu dafa am ay dispositions yoo xam ne dañoo jàpp ni Euh, day violer constitution bi donc ñun bu ñu ñëwee en séance plénière jotoon nañu def ay amendement même majorité bi sax yaakaar naa ni Benno Bokk Yaakaar def na ay amendement wàllu def amendement Yewwi def amendement donc ñoom ñëpp gisoon nañ texte bi amoon na ay insuffisance mais bañ ko defee euh, ministre de la justice dafa invoquer l'article quatre de la constitution mooy amendement yi moom su ko accepté wul kenn mënu ko débattre mooy texte bi nu moom nu mu ko indee noonu nañ koy voter te ñu jàpp ni loolu quand même euh, du démocratie maintenant nak comme que texte bi voté nañ ko ba paré en l'état nu ko gouvernement indee ñun sañ-sañ bobu rek lañu loi may ñu porter texte bi devant le conseil constitutionnel nga xamné mom mom moom fi nekkal euh, en tout cas mom lañu jox euh, compétence bobu mom lañu jox sañ-sañ bobu am nañ ci yaakar parce que ñu déposer recours bo xamné mom amuñu ci yaakaar waaye mhm. ñu déposer recours rek parce que am nañ ci yaakar recours yi so koy déposer il faut que nga am euh, au moins faut euh, que juróom-ñaari député au moins yu ko signé parce pare il faut nga présenter ay arguments et ay moyens et recours aussi il faut que mu recevable. Abdou Mbow moom bokk ci majorité bi euh, ne ñoñam des députés opposition bi am droit dal de déposer un recours ca conseil constitutionnel. Mm, waaye nag conseil boobu rek moo war a wax li am mu nag yokku ne nañu nag xam ne ñoom newuñ ci dëkk ñu déglu ko ak awa mbay xam nga réew mi nag réewu démocratie la ku ci nekk nag am nga sa pàcc boo xam ne loolu la la yoon may yoon may na député yi ñu wote waaye bu ñu wotee ba pare ci loi constitutionnelle am na diir boo xamante ni mën nañ ko xaar pour xool ba xam ñoom dinañ def recours wala de diir boobu bu dee huit jours la maanaam juróom-ñetti ñetti fan waaye bu dee procédure d'urgence dañ koy wàññi ñeenti fan moo tax ñoom ci ñeenteelu fan ba ci la déposé recours daan ne loi bi nañu ko annulé loolu nag seen yoon la seen droit la parce que droit moo leen ko may parce que euh, constitution bi dafa wax ne dixième député yi bu ñu jàppee ne loi bi dëppoowul ak constitution mën nañu déposé recours boo xamante ni daf koy annulé ci conseil constitutionnel loolu la ñu def mhm. waaye man mi nga xamante ni bokk naa ci ñu wote loi bi jàpp naa ne ñoom li ñuy def nii bokkul euh, dëppoowul ak yoon parce que loi bi c'est

ñoo xool yëf yi na muy ñoŋee euh, ñu def ko ay pàcc ba ku ci ne daal daal gis boppam bu ñu sukkandikoo ci moom mi jiite Senelec di Pape Mademba Bitèye am na ab consultant bu ñu jël am na nag juróom-benn weer ngir daal di jébbale résultat ñu déglu ko tey moom la kon tey dimbale nañu jël nañ benn consultant boo xam ne commencé na liggéey boobu pour def ko. jël nañ aussi équipe commercial bi nga xam ne ñoo fi nekk ñu yóbbu leen si dëkk yi nga xam ne. foofu la affaire bi di marché ñu dem xool gis nañ ñooñu luñ ko def mais xam nga wàllu tarif dafa sensible ba nga xam ne munoo tëb tëb def ko parce que fii dañu am réglementation boo xam ne commission de régulation moo koy contrôler pour que tarif bi mun a ñëw ñu wax nii ak nii lay demee ba fu mu yegg ba buñ koy appliquer ba ba bañ koy yëgal nit ñi balaa ñu koy appliquer donc loolu ñu ngi si mais ñu wax suñu clients yi daal fu mu toll nii luñ leen di ñaan mooy ñu jéem a xalaat ñu gën a góorgóorlu si ay gestes yi nga xamné moy économiser énergie manam ñuy débrancher appareil manam ñu leen di fay manam ñuy surveiller xalé yi bu ñuy teud ñu baña jël appareil yi yëpp branché ko lolu non yëpp day yok consommation bo xamné mën nañ ko éviter et donc mën nañ gëna économiser énergie bi facture yi gëna a wàññeeku comme ça bu ko défé duñu xalaat né tarif yi ñoo yok yokk. Euh, translinéaire bobu étude bi ban délai ngeen ci fixé wu. waaw consultant bi mom jox nañ ko ben cahier de charge mais comme numa ko waxé bu consultant bi paré dina ko soumettre Senelec Senelec joxe si avis ba pare ñu soog a dem nag si commission de régulation commission de régulation moom xam nga dafa am calendrier boo xam ne moom lay xoolee affaire yi moom lay appliquer et puis chaque fois mu mun a wax période bi voilà nii la ñuy def ak lii la ñuy appliquer donc loolu bu paree rek nañ si ñëw mais lu ñuy yaakaar mooy consultant bi moom juróom-benn weer la am pour déposer ses conclusions et puis loolu bu paree ñu soog a ñëw nag jublu si procédure bi ak commission de régulation délégation officielle du Sénégal niki ci Kinshasa Congo ngir nak jeu francophonie dina xew-xew bo xam compétition ci walu sport ak tiada at wi euh, ñaar artiste ñu ngi fay xaar premier bu Sénégal envoyé spécial Kinshasa Ladies and gentlemen, welcome to Kinshasa, International Airport dépassé nañ ñaari waxtu ci fajar bi avion bi egg ci aéroport Ndjili, bu Kinshasa ambassadeur bu Sénégal ci République démocratique du Congo ak directrice des arts ñu ngi doon xaar délégation bi donte ne coono voyage bu metti am na compétition sportive yi moom dina doon ni ki alxemes gi ci euh, basketteur yi bu 19h jotee Sénégal dina lalé ci match de poule ak euh, Bénin ci waxtu woowu RDC itam mi dalal xew mi euh, dina euh, laale ak euh, équipe bu Tchad ci wàllu concours culturel yi moom samedi bu ñu amalee cérémonie d'ouverture bi ba noppi ci lay tàmbali délégation Sénégal bi nag mu ngi am lu ëpp téeméeri nit ak juróom fukk lu ñu bëgg di fexe def li raw li ñu atum 2017 ci jeu de la francophonie yi nga xam Abidjan Mokodon Dalan, dalal Sénégal a ci ñaar fukki médaille ak juróom-ñaar bokk ci en or mu performance bu gën depuis bu mu euh, événement culturel et sportif à tout 1989 kon euh, euh, sport Sénégal dina ci lu discipline football basketball judo wala lutte africaine ci wàllu culture dinañ discipline yu hip hop lépp photographie wala sax pecc mu ne woon Anna Rocha fii ci Kinshasa ngir rajo Futur Media. Anna Rocha Anna Rocha ca Niger moom président Macky Sall mu ngay naqarlu li nga xam ne am na fa wala coup d'état bi ay militaire nangu pouvoir bi ci nag ab lettre bu mu fasal ci Twitter njiit réew Sénégal di Macky Sall mu ngay wax ne daal jël pouvoir ci euh, doole mu ngi koy ñaawlu te xel mënu ko nag mu sax yokku ci ne euh, karange euh, njiitu réew mi di Mohamed Bazoum ak njabootam faw ñu gin ci bàyyi xel ba tey nag président de la République ne euh, faw yon def liggéeyam ba démocratie delluwaat fofé ca Niger. RFM bitim réew. Georges maa lay ziar. delloo ziar Seydou Nourou. bisimilah ci xibaaru biti réew. donc tambalé coup d'état bi sax nga waxtaan léegi fofé ca Niger armée bi dal ne amna yenn déclaration yoo xam ne jóge na ci ñi jël réew mi. Euh, tey ci suba le chef d'état-major des armées xam ne ni euh, moom général Abdou sidikou euh, Issa né ci ab communiqué commandement militaire bu forces armées bu Niger jël na dogal ni and ak ña nga xamante ne ñoo def boobee coup d'état force de défense et de sécurité lolé nak liko waral ñu né dañuy bañ deret tuuru ci dëkk ba te itam dañoo bëgg ñu auto karangé ki nga xamante ne moo di njiitu réew Mohamed Bazoum ak euh demu ci nag lañu xamlé ci euh, télé bi ci ab déclaration coup d'état beeg euh, lañ fa tegandi manam ab conseil national pour la sauvegarde de la patrie coup d'état bobé am ki nga xamantene ne gëstukat la euh, jangal kat ci université bu Zender bokk itam nekk itam gëstukat Timbuktu Institute mom Néna, na béy na mbuus lan mo waral bobé coup d'état ñu déglu ko mom Abdourahmane Diko pratiquement on peut supposer que le coup d'état au Niger est consommé. coup d'état bi mom kenn waxatu ko parce que wessu nañ ko léegi nak euh, xam ngeen di communauté internationale euh, lu ni mel bu di am euh, daanaka ñom seen taxawaay moy fexé ba condamné ko wax li nga xamante ne moo leen naqari ba pare exiger ñu delluwaat euh, ki nga xamante ne moo fi nekkoon njiitu réew jàpp nañ ni que fi mu toll ni weesu nañ ko. waaw te euh, xam ngeen ni sax coup d'état bi euh, dafa bette donte nag ci ñi nga xamante ñoo def coup d'état bi lañ jot a wax moo di gis nañu daal que di jëm ci wàllum démocratie dafa sooxe ci dëkk bi ci li jëm yi tamit ci li nga xamante ni moo di wàllum gergeek yu ni mel mal gouvernance dafa ti ay mbir yi nga xamante ni daal moo daal di am fii ni ci Niger ba tax na ñoom ñu jël dogal ni dañuy daal di coup d'état ki nga xamante moo fi nekk s'il faut euh, se fier aux déclarations. waaw li ma leen wax modi di waxaat ko sax xanaa ma bamtuwaat ko ñom junte bi lañu xamné modi mal gouvernance femme ci réew euh, di tamit ci jëm ci walum guerre itam euh, dafa di mbir bi nga xamanteni ñom ñoom dañoo jàpp ni mi ngi am ci réew rax ci doli tamit beneen raison nga xam jox nañ ko modi walum sécurité dafa suuxi fi ni ci Niger ba tax na kon bok ñom ñu def lu ni mel donc bo xolé ñom dal ci loolu lañu teunk jëf yi nga xamanteni daf nañ ko dal di coup d'état ki fi nekkoon njiitu réew euh, président Mohamed Bazoum mom euh, mi nga xamantene khatimul xaatimul ab démission jamono ji ba léegi mu ngi ci loxo yi ñi nga xamantene ne ñoo def euh, coup d'état boobee waa mbootaayu xeet yi ak Union européenne naka noonu itam Russie woté ñu bayiko ci saasa. ci Maroc lu xaw a ci juroom fukki doom yi yaadama lañu tek loxo dembu ci ab opération bi nga xamantene ñu ko fa doon amal ndax xex lepp lu jëm ci walum terrorisme ñom nak dañoo jàpp ne dañoo bok ci ay groupe jihadiste bokk na ci ñom ñaar fukki nit ak benn ni nga xamantene jamono ji ñu ngi wi euh parquet bi di len di saytu opération yooye nak ñek def te defandoo ko ci ay euh, diwaan yu bari fofu ci euh, Maroc Modi ay agent au bureau central d'investigation judiciaire nak non itam force spéciale antiterroriste ne nekkee ca direction générale de la surveillance du territoire national ca Cameroun bilangu euh, bâtiment wala immeuble bi nga xamantene mo daanu ci week-end bi gën na 10 gën ka tuuti ñen fukki nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan lolé le gouverneur bu région du littoral xamlé bilan bu bu njëkk ba nag ñu newoon euh, ñaar fanweer nit ak euh, juróom euh, ñaar ñoo ca ñàkk seeni bakkan bokk ci ñoom ab gone gu jigéen gi am ñetti at ak itam ab soxna su am fukki at ak juróom ñeent ci guddig samedi jëm dimanche am immeuble bi nga xamante ne ñeenti étage la benn boor ba moo daanu dem ca beneen bâtiment bu nga xamante ne bâtiment résidentiel la nekk bâtiment bi nga xamante ne benn étage moo ca ne ñu wutali euh, foofe ca Russie waxtaan wa diggante Russie ak Afrique teelawante Saint-Pétersbourg président bi nag di Vladimir Poutine dina baaxee njiitu Afrique yi euh, dund ko doy. te lu ñu fay dara jiitu réewum Russie moom mu ne dana joxe lu ay euh, fukki euh, junni junni euh, tonne céréales fii ak ay weer donte sax sanction yi nga xamante ne waa tugal teg nañ ko ci ndodug Russie te mu jafel waa Moscou ngir ñu génn seeni céréales ak seeni engrais yóbbu ko biti réew moom mu yokk ci ne Russie mu ngi xaar ab wala bokk mu ne Russie dana eggee Burkina Faso Euh, Zimbabwe Mali Somalie ak République centrafricaine naka noonu itam Érythrée lu tollu ci euh, ñaar Fuki, ak juróom jëm fukki euh, tonne ci céréales te duñu fay dara fi ak Vladimir Poutine né liñuy xaar ci récolte fofu ci Russie ci walum céréales ren Guinea, ni ab record lay don te dana tax itam ba bu Afrique mënul jot ci céréales yu Ukraine ñom Wa, Russie danañ leen ko ndax dañoo am responsabilité ci euh, lépp lu jëm ci wàllub sécurité alimentaire mondiale. George benn nit. lu mu néew néew juróom fukki président Afrique ña nga foofa ca Russie <laughs> yaakaar ci benn nit loolu njàngat la ñu woyal. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. tàggat yaram dañu dem foofe ca Kigali daal foofe nga xam ne foofu la ñu war a amal la ko tàmbalee ëllëg afro basket ci wàllu jigéen Sénégal nag euh, daanaka mu ngay bëgg a wanewaat euh, xarkanam bu bu yees. waaw loolu moo di seen mbébét fexe ba bokk ci kii bi nga xamante ne dañ leen dal di lim ci kaw bu tournoi bi jeexee foofu la ci Rwanda. ñoom nag euh, ci yoon woowule sax ña ngay amal ay jogante xaritu bu ci mujj démb seen digg ak ñii di waa république démocratique bu kongo Sénégal nag moo ca dal di am ndam ngir mën a engagé gile tournoi ak confiance tey ji suba gi nag ba ñu xëyee suñu jigéen yooyu le dal nañu wutale terrain entraînement bi ñu ànd seeg suñu ndaw bu ñu fa jawal euh, di Soda Thiam gannaaw ba ñu ñàkkee seen jogante xaritoo gu njëkk fii ci Rwanda seen digganteek Mozambique mi leen daanoon 70 ci 69 gaynde Sénégal yi nag daal di nañuy wane seen bopp seen digganteek RDC mi nga xamante ni daan nañ ko 71 ci 53 ka leen di tàggat di Moustapha Gaye di rafetlu na joueuse mi doxalee. dans le jeu d'ensemble et ensuite euh, ci adresse bi ci ci ci recherche de solution d'équipe bi côté boobu moom vraiment xale yaa ngi baax. boo xawoon na jafe ci premier temps parce

ñu am résultat gile. suñu état d'esprit changé wul depuis bi ñu commencé entraînement c'est le même dañuy continuer di di góorgóorlu rek match yi jàngal nañu lu bëri aussi surtout par rapport au premier match Nous avons ñi di basket Nous découvrir Afrobasket tamit xam nañ lan lañu lan lan xaar donc euh, on a dañoo en fonction du premier match bi. mu remplacer Fatou Silla mi nga xamante ni dafa amee gaañu gaañu moom ma jigéen seen bokkoon na ci ñaareelu jongante xaritoo bu Sénégal Moustapha Gaye di rafetlu teewaayam. on espérait avoir Fatou Silla d'ailleurs je lui lui chapeau. On a on la félicite pour tout ce qu'elle a fait, mais les problèmes de santé, c'est ça. Mais Madiguen aussi a, vraiment un gros potentiel, et a beaucoup à nous apporter, elle est très polyvalente. Et ensuite, euh, elle a bien fait dès 2021, donc euh, on compte sur elle pour, apporter tout ce qu'il faut, euh, le plus qu'il faut. gaynde Nak, nag daal Tagato, niki Alhamis gi ci Arena ci Drum Fukisimili, capitaine Bidi Ayatra Warenak, mom Bokulwon, avant dernière séance d'entraînement boblé, mu ne fii ci Kigali Rwanda ngir radio Futur Media. Soda Thiam jërëjëf Sénégal nag match bu njëkk dana ko amal samedi diggam ak ñi di waa Uganda. geneen adversaire u Sénégal ci euh, googule compétition de di Afrobasket bu ñu jagleel jigéen ñi euh, Mali lay euh, dal di doon bu loolu weesoo Seydou ñu daal di waxtaanee wàllu football ak ci lu jëm ci wàllu coupe du monde bu ñu jagleel jigéen ñi ci Australie Nigéria nag euh, moom tey jii dal di dina am ndam ci diggam ak ñii di waa Australie mi ko organisé ñetti bal ci ñaar euh, waa Australie nag euh, ñoom ñoo njëkk a dugal sax laata ñi nga xam ni ne waa Nigéria di daal di égaliser seen biit nag ko dugal moo di kanu wute nag noonu ko kanu kooku nga xamante dañ ko daan dégg ñàkkul nii dañoo bokk sant waale jaar di dugal ñaareelu bitu équipe bu Nigéria ñetteel ba nag seen star bi di Oshoala moom moo ko daal di dugal. leneen yi nga xam ne daal mën nañ ko wax moo di ñetti bal ci ñaar kon bokk la Nigeria Nigéria daal di daan Nigeria nag euh, fi mu toll nii daal dina euh, foqati place bu njëkk bi euh, ci classement si seen groupe boobule tolloo ki poñ ak ñi di waa Canada Australie bokk ci réew yi ko daal di organiser moom nga féete si ñetteelu place bi ci classement bi. bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee footballu góor ñi ak lii di pré-saison bi maanaam jongante yi nga xam te club bi dañ koy amal ngir waajal seen ubbite saison seen championnat. Chelsea moom dal dina am ndam euh, biig ci diggam ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Newcastle. Hmm. Chelsea euh, wala boog dañoo daal def match un but partout waaye ka ca ràññeeku nag moo di doomu Sénégal gi di Nicolas Jackson moom moo dugal butu équipe am boobule euh, di Chelsea bi nag moo di ñaareelu but bi nga xamante ni moom Nicolas Jackson jot na ko dugal. Euh, ci euh, ñaari jongante nga xam te daal jot na ko football ànd sa équipe am bu bees bi di euh, Chelsea geneen doomu Sénégal gu ràññi ko mu di Papa moom ànd ak Olympique bu Marseille ci jongante xaritoo bu ñu doon amal sànq seen diggante ak benn club bu nekk ca Hollande Walbeek ñoom nag euh, ñoo mujj gagné waa Olympique de Marseille Papa Gueye moom moo jot dugal euh, bitu Marseille bi kii di Ismaïla Sarr moom mi nga xamante ne ba ñu ko jëndee fan yi la yàggul moom itam jot naa football ci googu lay jongante ànd ak équipe am boobule di Olympique bu Marseille. Arsenal moom ci jongante xaritoo bu doon dox tey jii ci diggam ak FC Barcelone Arsenal ka daal di daan juróomi bal ci ñett. ki Leandro Trossard di doomu Belgique jot naa dugal ñaari but pour équipe am boobule di Arsenal Real Madrid moom itam jot naa am ndam tey yi euh, ci diggam ak ñi di waa Manchester United ñaari bal ci dara seen nouvelle recrue bi di Jude Bellingham di doomu Angleterre ba woo ca Borussia Dortmund moom bokk na euh, si ñu jot a dugal pour équipe bu bees bi di Real Madrid Seydou. Euh, Cheikh li nga bind mooy nawetaan phase nationale yu ONGAM. On ñu ko wara amal ci njeextalu septembre foofe ca Sédhiou. On moo mode organisation nationale de gestion des activités de masse ñoom nag seen phase nationale ca Sédhiou lañ ko bëgg amal. ñaar fukki fan ak ñett jàpp fanweeri fan la ko jiitu nag ñu nga doon amal ab lël euh, ca euh, diwaanu euh, Kaolack foofu nag lañ jëlee décision gu ni mel bëgg nañu indi nag ay coppite yu bëri ngir bu ko defee daal nawetaan bi ñu gën ko ñoŋal ñu ànd sekk suñu jigéen ñu toogal ci diwaanu Kaolack nangaan di Fatou Mbow waajtaayu phase nationale bu football local nag daal dinay dajale acteurs yi nekk ci wàllum organisation nationale de la gestion des activités de masse ñu bokk ci wàll gi nag di xamle ne dañuy dooraat lii di tournoi yi ca bu Sédhiou buñ ci indication secrétaire général di Diallo. nu daje woon fi di xool li nga xamante ne nii moom la ñu weesu ak li ñu dëgmal ba jàpp nañ li nga xamante ni moom mooy phase nationale bu ONGAM ren édition 2023 ñu ne nañ ko yóbbu ca Sédhiou ñu koy amal nag ci ñetti département ya nekk foofu noonu. moom mi di xam ne ngir suqali nag football local bi ay défi dafay taxaw. ñun suñu credo moom mooy développer sport bi mais également. ASC yi nekk ay ASC yoo xamante ne nii ay ASC yu am njëriñ la ñuy doon ASC de développement mais cultiver également culture bi jël daal li nga xamante ne nii mooy ASC yi def leen ay jumtuwaay yoo xamante ne nii dañuy jëriñ réew mi jëriñ seen bopp. Longaam nag daa di jox këdd bu baax a baax li di licence yi tax ba conseil régional war a mën a am ngir mën a safara mbir yu ni mel la. waaw wàllu licence yi ñun liñ ñu jox muy jóge ko feneen muy ndimbal dañuy fexe mu delluwaat ci ASC yi. loolu nak bi ci njëkk mom moy affiliation ci ONGAM c'est gratuit mais au-delà de ça buñ défé ay activités yo xamante ni day am ay retombées financières dañuy fexé mu déllu ci base ba base ba mom moy ASC yi fala ndaw yi nek ñu gis ci seen bop bu baaxa baax. phase nationale bu tournoi bu ONGAM da seen nañ ko tàmbali ñaar fukki fan ak ñett jàpp fanweeri fan ci wéru septembre bi di ñëw ci département bu Sédhiou Goudomp ak Bounkiling Fatou Mbow Kaolack radio futur media jërëjëf Fatou Mbow kon mbokk Seydou Nourou fii lañ koy dal di xibaaru tàggat Cheikh Tidiane Diagne. DSL ak Marc Bidi di Dekakila direction de la santé mère enfant à Kenkeri AAD. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye tiis ak naqarat ci yéenekaay yi ginnaaw bakkan yu rote woon géej ca wakaam ci tukki mu jaarul yoon dawal ak dawalin wu jaarul yoon nit defati na jéye démb ci tali bi ñaar fukk ak juróomi bakkan rot ca diggante Louga ak diwaanu Ndar observateur xëy gaaral listab ñu ñàkk seen bakkan ñu waatit uh, ci jooyi gune yeeg xol yu tooy ak sago gu tàggool ñi nga xamante ni ñoo rëcc ci jéye ji di rescapé yi gi di mairie ca Podor xamal gën caa gàtt ñaar fukk ak juróomi bakkan rot nañ boppam ñoo baaxul woon ba mën a daw cib taw moo waral bis bi daal di tarxi saaraan dal cib garab suñ ci tegee nag wate yi nga xamante ni ay xotti wata lay doon moo waral sax bi jéey ji amee ngeen gis juugu weñ gunu dajale accident bi am deret yu bari tuuru ci ñu teg cab l'hôpital boo xamante ni tanewul wate ba ci direct ñëw suñu jàng ñàkkum scanner service accueil ak urgence bu jaarul yoon banque de sang di fu nuy mayee deret it bu doxul nam ware yéene kaay bi ci weneen wàll di laaj ana 23 ñaar fukk ak ñetti mesures yi nga xamante ni nguur gi jëloon na ko ngir dakkal mu ne deret yu tuuru tali bi les tuuru ca nag accident démb bi booy tolloog ngeen saax ci Louga ëpp na kenn ci ñi rëccee ci accident bi ne chauffeur bi ci boppam moo doon xelu xelu jéggi dayo woto bi rëcc ko maanaam contrôle véhicule bi ci yéenekaay bi monsieur ministre de l'intérieur Félix Diome di ci xamle it ne boo jàngee carte grise beeg woto bi la war a def ci lim ak la ci nekkoon dëgg ëpp na am na surcharge ak fukk juróom-benn di client Sud Quotidien ne na woon foo woon rek mesures yi gouvernement bi jëloon bi jéey ju ni mel di am ca six kilos Bougane Gueye Dany ci yéenekaay bi ne yëf yi day dem ba nduru sax ne kilifa yi dañ caa jéemul dara président Macky Sall moom ñu jàng ci yéenekaay bi ne ginnaaw bi mu ko tiisoo jaale njaboot yi mu ngi sàkkuwaat ci ñëpp rek ñu boole ci yëf yi mooy toog fàggandiku yéenekaay bi di réew mi ne jéey jeneen juróom-benn di weer ginnaaw jéey jëwoon ci six kilos ca nag même cause même effet maanaam li koy faral di waral mooy di ko waral ñuy dundit mitit yi nga xamante ni ñu ngi koy wéy ko dund ñu ne ngàmm nag mel woon a ñàkk maanaam jéemun ca dara fatalisme coupable le quotidien ne aw naqar dëgg la ñu amee ca île amorphile bi nag ndax bus bi ñu duppee woon air jude jaabe moo saaraan këpp ci boy tolloo ngëñ saax talaata juróomi waxtu ci ngoon la bawoo jude jaabe yab ñeenti kiliyaan ginnaaw ab alt ca dungeel yab fa juróom-ñaari kiliyaan yeneen jël yoonu ndakaaru bi jëlaale yeneeni kiliyaan yu village yu île fil bi naka noonu it ñenn ci ñu bawoo woon Mauritanie ca pété la feese ñu ne la desoon as néew ci place ñu ne ay kiliyaan yi bokke ci kiite ak sincu jonge waaye dogalu borom bi subhaanahu wa taala daal di yegsi nag démb diggante sept heures ak huit heures ci boy tolloog ngën saax yéenekaay yi di enquête ak Le Soleil yépp nag xamal ñu lu jëm ci wàllu blessé yi ne état bi mooy jël taxawu gi maanaam paj meeg yeneen wàllu tukki mi ci anam yu dëppawul ak yoon source aané ginnaaw réew Maroc Sénégal mooy ñaareelu ëpp sëlëbe yoon bi nga xamante ni fi la ndaw ñuy déparé ñoom aji tukki yi nag di ndaw yooyee yéenekaay bi ñëwaat ci musiba leen di faral di fekk ci traversé désert bi tàngooru mitti aw mar naka noonu ay addu kalpe ba ci ay kidnappé su moom ñenn ci ñoom ñuy faatu ci yoon wi bi ñuy faral di jël seeni néew di sànni ca ndox ma rax ci dolli lu seer la ñuy fay nag ngir jàllale gi observateur moom dellu si ci ñuy delloo see dax la juróomi doomu Sénégal am ci ñoom ñu feebar am na ca koo xamante ni moom AVC la am mu ne ngal di jaay bagaasam yëpp tegu ci yoon wi te it dafa mel ni noppeegul ngir ballu ni mel keneen népp aji tukki di daaguwaale jàngoroy jabet di wax moom la mu daj népp coono ci yoon wi am te it ay seede yu tiis di ndaw ñoo xamante ni dañuy mujj faatu ci yoon wi ba duñu am pexe beneen lu may jël seen néew sànni ci géej ana lii lu ko fi jar Maguette Gueye mandat ne état bi ci boppam moo dekkilul yaakaar ci ndaw ñi l'état ne fait pas rêver la jeunesse dañuy des ak ndaw ñooñu ak ñenn ci ñoom bokk ci 22 deuxième promotion projet Young African Leader Initiative yàlli di promotion bu nu bàyyilee ren star planétaire bi di Youssou Ndour observateur ne démb la woon xew bi ci ngoon ci Césac yéenekaay bi del si ci kàddu yu am solo yu mu fa jël moom parrain bi président Youssou Ndour di sàkk ci gune yi ñuy yëkkatendoor di tegandoor maanaam boole seen doole yépp ngir lenn li rek njariñel Afrique projet boobee nag président Youssou Ndour doon parrain bi ren ñu fàttali ni atum 2010

pàcc bu mujjub ci euh, xibar yi ñu ngi nak ci ligne bi ak mustapha kad expert ta comité interministériel bu xex lepp lu jëm ci euh, mbënn mi wala immigration clandestine mom mo bind sax ab téré bu mu tuddee stratégie euh, bi ñu doon jébbal taj suba maa ngi lay ziar mustapha Ka. maa ngi ziar monsieur jërëjëf ñu ngi tam ci ligne bi ak kii di Badara Ndiaye di président ONG Jadem moom tamit xalañ lool ci li ñuy waxtaanee maa ngi ziar Badara Ndiaye. waaw ah, maa baax a baax a baax jërëjëf ñu wax euh, war a waxtaanee stratégie nationale maanaam ban plan ngeen nas euh, ngir jële fi euh, li nga xam ne moom mooy immigration régulière di mbëkk mi ndax daal yëf yi yàgg nañ cee wax waaye FRAPP daal di xiddeen léeg sax ñu dem ba jàpp ne xeex bi jeex na wala dafa daal mel ni dañu xabtal xale yi pour ñu dem ci géej lu waral loolu buñ ko tàmbaleek Moustapha Ka di expert bind boobu la téere waaw Ba maa ngi lay ziare di la di la sant ci invitation bi ci jox sa xalaat bi nii dama bëggoon a wax benn baat ci bala maa dugg ci sujet bi di gërëm ministre de l' intérieur bi nga xam ne bi liggéey bi taxawee xalaat na ma man ma def ko mu jokkoo ci ak sama ministre de la justice moom mu jox ma autorisation ma def ko liggéey bi nag dafa nekkoon ñu tënk naka lañ mën a boolee doole yi bay xàccandoo di dóorandoo pour mën a jàmmarloo lii nga xam ne mooy tukki tukki xale yi jaar ci gaal gi wala ñu jaar ci yoon yi nga xam ne day mën nañ ci ñàkk seen bakkan. Hmm. waaw stratégie bi boo ko xoolee moom lañ doon séddoo nii ci teewaayu premier ministre ak euh, ministre de l' ak ay naataangoom. Hmm. Euh, stratégie bi dafa nekk loo xam ne mu ngi doog am Sénégal. parce que Sénégal dañoo xooloon ne ku nekk dafa nekk sa ministère rek wala sa structure rek di def di def say say pexe. Hmm. di jëm say pexe mosuñu boole doole yi. lii nag ñu ne lii nag bu ñu boolewul doole yi duñu am doole. naka la ñuy boolee doole yi nañ defar benn document boo xam ne tuddee ko stratégie. Hmm. boo xam ne ñëpp danañ ci gis seen bopp ku nekk li nga war a def ñu wax la ko ak noo koy defee ak kañ nga ko war a def. Hmm. loolu moo nekkoon euh, stratégie boo kon di nga ko tënkoon nag ci juróomi poñ benn poñ bu njëkk bi mooy fàggandiku mooy prévention ñu koy wax ci olof fàggandiku. Hmm. Euh, fàggandiku mu njëkk bi mooy naka la ñuy def nga xam ne euh, cause profonde yi li waral migration yi li gën a xóot li ci gën a xóot mooy xale yu ci bëri. Euh, du loolu rek naam xale yu ci bëri dañuy dem pour xool nu ñu mën a amee liggéey wala nu ñu mën a daanee seen doole ba jàppale seen bopp. seen maanaam tekki rek tekki ñoom dana dañ ko tuddee. dañ ko tuddee tekki mieux mm, mm. tamit am na ñuy dem wax dëgg yàlla manqué wuñu ay moyens am na ci ñoo xam ne seen parents fa lañ nekk ñu juddu nekk fii war a dem ci regroupement familial bi. am na ñoo xam ne seen seen jëkkër wala seen soxna fa lay nekk dañuy mën a dem mais liggéey yóbbu leen fa tekki yóbbu leen fa parce que am na ci ñu bëri ñoo xam ne mm. tekki dafa yëpp nag boo ko boolee jël cause yëpp dañoo commencé ñu ne balaa ñoo def dara nañ xool lépp loo xam ne am na fi ci ay charte ci ay euh, kuréel yoo xam ne dañuy xeex affaire euh, mbënd mi. non affaire affaire mbëkk mbëkk mi. waaw mbëkk mi ñu tuddee loolu doc revue documentaire. Mm. tënk ko ci benn benn këyit bu ñuy wax revue documentaire. Mm. bi paree ci loolu ñu ne nag bu gee bu dee bëgg nañu saafara mbir bi dañ xool bañ a bañ a nëbbante dara bañ a waxante lu amul ñu xool lan mooy jafe-jafe yi ak lan mooy suñu doolee mooy force ak faiblesse lan mooy suñu doole ak lan mooy suñu jafe-jafe ci xeex bi. Hmm. ñu xool bi ñu xoolee gis nañ jafe-jafe yi gis nañ ne wax dëgg yàlla balaa jafe-jafe yi tamit état bu Sénégal lim man yëpp mën na ko mu ngi koy def ci wàllu tëral yoon ab loi ci wàllu defal ay structure parce que bu njëkk ba euh, cellule nationale de lutte contre la traite des bi nekk ministère de la justice moo doon moo doon euh, taxaw ci mbir mi. Hmm. ñu dem ba deux mille vingt président daal di koy jël euh, jox ko ministère de l' intérieur pour que ñu ne léegi cellule toppatool affaire traite des personnes affaire njaam. mais affaire wu migration affaire wu mbëkk bi moom nañ ko bàyyi ministère de l' intérieur moo nekk kuréel bi nga xam ne moo regroupé ministère yëpp. Hmm. ak société civile beeg ak ñëpp. mais mais mais plan bi euh, wax nga li mu ak euh, li mu nas waaye li li ëpp solo mooy ñëpp ànd di nasandoo di dóorandoo ndax loolu am nga ci yaakaar ndax sànq nee nga ca njël benn ku ci ne daal yaa ngi ci ruq rek di nasay euh, nasay pexe. am nañ ci yaakaar parce que boo xoolee ni ñu tëggee stratégie bi dañoo rek Dakar dañoo taal suñu oto dugg ci àll bi ci région yëpp parce que Sénégal xaaj. fukk ci fukk juróom benni pàcc. ñu koy wax pôle territoire. boo demee Kaolack moo regroupé Kaolack Fatick ak kawlax nga ñu dem Sigi Sigicoor Kolda ak euh, Sédhiou ci la bokk. Hmm. ñu dem Tamba boole waa Tamba ak waa Kédougou dem Ndar boole waa Matam ak waa Ndar ak waa Louga. ñëw cees boole waa Thiès ak waa Diourbel doog a ñëw Ndakaaru. Hmm. képp koo xam ne foofu association kuréel nga buy yëngu muy kuréelu kuréelu jeunesse ci xale. kuréelu nappkat kuréelu baykat kuréelu euh, ñuy wax BAOS yi mooy hmm. bureau de suivi retour. wala association régionale migrants de retour bi yoo nga xam ne am na ci quatorze régions du Sénégal yëpp ku ci ne dañ ñëw ñëw wax la laaj la jox la questionnaire nga remplir ko jox ñu. Mhm. maa ngi ma maa maa ngi ñëwaat ci yow léegi euh, xam naa ne su moo ñu tañ waaye maa ngi ñëwaat euh, ma tuuti rek ma jël ci euh, waxtaan ak Badara Ndiaye di président ONG Jadem mu tamit ti ci wàllu woowee sëñ Badara yëf yi ba tey daal mu ngay wëy. mu ngay woy kenn xamul kañ lay arrêté ndax dina arrêté sax la ñu bëri di wax lan la yow mu ci yëngu ci wàllu question euh, migratoire lan moo lan moo xew daal ba ba euh, tey mënuñu fexe ba am saafara. Euh, jërëjëf <coughs> ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax yëf yi dafa nekk loo xam ni lu lu lu jafe la parce que il faut ñu waxtaane ko dafa dul loo xam ne dangay xëy rek daal di ko daal di ko daal di ko réglé lu jafe lu jafe réglé la parce que Euh, am na ay situation yoo xam ni dafa nekk ay situation yu wute ñii dañoo dañoo bëgg a dem wuti liggéey ñii dañoo bëgg a dem euh, tenter seen chance ñii dañoo bëgg a nekk ci seen jàmm wuti jàmm ñëpp daal ku nekk daal ak li nga xam ne moo tax jóg mais te yaakaar nga ne fi nga ko war a wutee ji mooy mooy ci dëkk tubaab yi ak noo ko mën di amee nga dem wuti ji loolu loolu dafa nekk loo xam ne lu jafe la mais nag li nga xam ne man moom laa ci seetlu loo xam ne bi ko discuter tey jii loo xam ne man sama expérience bopp parce que man euh, dama liggéey Nations Unies ak CEDEAO laa doon liggéey balaa may ñëw di liggéey ci ci association yi hmm. mais la nga xam ne moom laa seetlu mooy euh, euh, démarche bi nga xam ne moom lañu utiliser nii doxalin bi moo nga xam ne utiliser lañ ko muy ñoom ñoom wax silmi Euh, ñoom euh, commissaire divisionnaire euh, Bokar Ly ak ak collègue yi ñuy liggéeyal ñoom commissaire ba Badiane mm-hmm. ñoom dimanche bi ñu dañu cee boole mm-hmm. laaj ñu ci lu bari ni nga xamee noonu ko consultant bi waxee laaj nañ ñu suñu xalaat boole ñu ci ay réunion ñëpp ñu wax suñu ay xalaat mm-hmm. loolu moom dafa nekk loo xam ne lu lu am solo la waaye toujours Euh, da ngay joxe sa xalaat keneen joxe xalaatam ñu tënk yëpp. Mm-hmm. seet naka lañ koy doxalee wax dëgg yàlla loolu boole bi ñu si. Mm-hmm. maintenant nag affaire bi dafa xaw a jafe. dafa jafe parce que dafa am benn affaire boo xam ni pour man euh, euh, war nañ koo moytu ci biir stratégie bi. ñu ko ci doxalin bi daal. doxalin bi mm-hmm. parce que stratégie bi moom wax dëgg yàlla tegu na ci yoon. mais doxalin bi mooy war nañu wax xale yi ne leen bu leen tukki. gis nga loolu bu kenn du tere ni tukki parce que tukki droit la war nañ ko nag wax ne leen. yoon bi nga xam ne moom lañ leen trafiquant yeeg yenn affaire di bëgg a jaarale loolu mën nañ leen wax ne leen waaw ñoom ko yaakaar naan sax loolu lañ ci wundu maanaam waxuñu bu leen tukki waaye jaar leen fi ñu war a jaar wala waaw loolu war a jaar fi ñu war a jaar parce que hmm. parce que loolu mooy li nga xam ne mooy question bi nga xam ne mooy question euh, bu nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee gën ko waxtaanee ak ñoom hmm. mais beneen affaire bi nga xam ne euh, euh, gis naa ko ci ci situation bi mooy xale yi de acte ñi am

très rapide de la de compréhension ak seen besoins. donc de telle sorte que léegi dem bi dootul Barça wala Barça. d'après man ni ma ko gisee. Hmm. dafa soppeeku euh, entre 2005 mille cinq ak deux parce que maa ngi ci ci loolu. liggéey ci au niveau sous-régional liggéey naa ko au niveau international dootul Barça wala Barça xam nga léegi mooy lan wuti opportunité là. opportunité parce que nous, dañoo gis Europe comme espace d'opportunité. waaw d'accord léegi mais d'accord waaye tamit wuti opportunité euh, loolu tam tekkiwul ne da nga war a jaar yoon boo xam ne sa bakkan ah, mi ceexatu euh, gerte d' accord naa ak yow loolu hmm. laa d' accord ne li consultant bi wax hmm. ak li mu présenté hmm. xale yi dañu dañoo wa sensibilisation moo waratul am man pour man dañoo war a arrêter sensibilisation ah. parce que depuis dix ans léegi lu ñu def kon à la place euh, dañoo war a ñaax dañoo war a ñaax dañu war dialoguer dialoguer informé parce que dafa am loo xam ne ah, da ngay sensibiliser rek mhm. non non non bu xam nga sensibiliser mooy dem ci nit ki ne ko mhm. bàyyi li ngay def mhm. mais dialoguer ak nit ki ak information yi nga xam ne am na parce que man ma wax la benn affaire boo xam ne tax ma ma xalaat ne information war na am dañoo def benn test sur yan revenu ngay xaar boo demee Europe mais moyenne bi nga xam ne moom la ñu am ci benn région ku ci nekk mille deux cent mille trois cent euros lay xaar comme revenu du fa dara maa ngi ñëwaat ci yow léegi euh, euh, euh, sëñ Badara ma ñëwaat léegi ci Moustapha Ka dégg nga li mu wax ne dañoo war a bàyyi ñaax te yéen daanaka seen plan bi sensibiliser moom daf cee bokk mu indiwaat dialogue xam nga jaloog moom buy am foog nga toog gis ki ngay waxtaanal. waaw te plan bi yaakaar naa ne li ci ëpp solo mooy gën a sensibiliser jox jox xale yi ay emploi tàggat leen. mën na la ko gisee wala. waaw man ni ma ko gisee mooy euh, dialogue euh, ci sensibilisation la bokk. Mhm. sensibilisation dafa nekk loo xam ne dafa yaatu. tout à dafa ay mën naa jël euh, façon bu nekk sensibilisation mën na nekk dialogue mën na nekk ay émission télévision. mën na nekk ay mhm. émission rajo. tout à fait mën na nekk sensibiliser ci rajo rajo communautaire yi mën na nekk sax ay ay ay marche mm. ni ñu ko mën a defee ni ñu mën a sensibiliser daal dafa bëri mais dàquma dialogue bi parce que dialogue dafa nekk loo xam ne. da nga mën a euh, dégg xalaat ki ngay waxal. Hmm. mu mën koo jël en compte ci nga xam ah, mais mais Moustapha euh, euh, ci ci ci sa ci seen plan bi stratégie bi ndax mën nga ci wax ñett wala ñeent poñ ak tënk ko rek loo xam naa yéen da dañ ko proposé ci seen plan bi. li ñu mooy comme li ma la wax juróomi ponk yi benn bi mooy fàggandiku. Hmm. pour mbëkk yi bañ a am. Hmm. loolu loolu il faut nga saafara lépp lu nga xam ne ANPEJ ak ak PIMA projet yi ki nekk jàppale ah, xale yi. li ci def deuxième bi mooy. nag ñi nga xam ne dañoo dem di organiser di lekk xaalisu xale yi di leen yóbbu ñooñu dañ leen di réprimer mooy répression bi. Mhm. troisième axe bi mooy li nga xam ne gestion des frontières te mu waxu léegi ne waa DEPAF ak waa DNLT bu Bakary Faye ak commissaire ak euh, général Ndour di jiite ñu ngi ciy def mu mu liggéey bu mucc ayib parce que tey frontières Sénégal yi ñoom ñoo leen di surveiller entrée ak sortie mhm. bi ci topp mooy li nga xam ne mooy euh, mise prise en charge aide assistance des victimes. gis nga ne heure bu euh, gars yi ñibbisee ñu jàpp leen ñibbisi gouvernement bi da ciy taxaw euh, jox leen li ñu mën leen leen mën a jox defal leen suivi accueil ak orientation li ci bi ci mujj mooy. Mhm. naka la ñuy def ba nga xam ne ñi tukki bëggatuñu tukki ñibbi naka lañ leen di réinsérer bañ bokk ci tissu économique bi. Mhm. mën a toog Sénégal liggéey Sénégal tekki Sénégal. Mhm. am am la ñuy am te dootuñu demati di. très bien très bien ka euh, euh, Badara Ndiaye noo gisee juróomi poñ yi euh, ñu nas. daanaka loolu moom ànd nañ ci ci poñ yi surtout réintégration bi te nag réintégration bi. waa direction générale d'appui Sénégal l'extérieur ñoom dañ ci am wàll donc ñoom ku ci nekk bu defee. ñu ñu boole dina mën a dina mën a renforcer mais am na benn affaire boo xam ne euh, dama ci bëgg a lancer benn alerte boo xam ne information la mooy Sénégal dafa war a am euh, dafa war a euh, ratifier la convention 181 sur les agences privées de placement gis nga da ngay gis ay nit yoo xam ne day ñëw taxaw fu nekk ci koñ ñu nekk taxaw fa naan mun naa yóbbu ay nit wutal leen liggéey mais soo ko régulariser wul il faut que ñu am une législation spécifique sur les agences privées de placement ko gis nga dëkk bi ñu jege nii Mali bii am dafa ba pare daf ko daf ko légaliser ba pare daal di créer benn collectif bu ñu tuddee CONABEM nga xam ni ñoom placement euh, euh, à l'inter ñoom dañuy def ba placer placer ay nit sax fii ci Sénégal ñu fi wut liggéey. Mhm. donc placement boobu daf ci dafa dafa nekk loo xam ne dañ ko war a régler sur les agences privées de placement yoo xam ne dañuy intervenir au niveau national di yóbbu naan damay lay yóbbu wutal la liggéey ak ñoom d'ailleurs fi mu nekk nii am na problème boo xam ne am na mooy gis nga xale yi am na ñoo xam ne dañuy taxaw naan dama lay wutal liggéey Canada donc war nañ ci wax. temps yi bëri na lool temps yi ah, Canada bi waaw gis nga nag loolu bëri na lool ba ci internet bi. législation bi kii hmm. euh, monsieur Ka moom moo ko gën a xam. parce que moom magistrat la spécialiste la ci affaire boobu. Hmm. mais dañu war a taxawal une législation spécifique boo xam ne on professionnalise. Hmm. le placement nga xam ne ay professionnels ñoo koy def ñoom bu ko defee ñoom ñooy dem di wuti ay liggéey dans les dans les marchés du travail yeneen dëkk yi di fa placer xale yi. mais de manière légale. bu ko defee nga xam ni di nga mën a teg loo xam ne ci biir yoon na mais wax dëgg hmm. yàlla. Hmm. Euh, gars yi boole nañu ci liggéey bi. Hmm. ak si rafet na. Euh, ubbeeku nañu te man ma wax la ñaari structure ngi nii yoo xam ne vraiment ubbeeku nañu. ci affaire boobu. benn bi mooy délégation générale d'appui au Sénégal l'extérieur bi mooy waa Silmi. bu euh, commissaire vocal euh, très bien très bien merci beaucoup euh, Badara Ndiaye di président ONG JADEM spécialiste ci wàllu migration waaye tam jadjef Moustapha Ka di expert comité interministériel buy le lépp lu jëm ci mbëkk mi jaa ngeen suñu gan yi Assane Diouf mi fare woon ci machine bi Yacine Pouy ci digital bi Seydou Nourou Ba ci micro bi xibaar yi buur na asalaamaaleykum